ngir ngeen di jot suñuy vidéo nag foo leen biir réew mi wala si bitim réew da ngeen si Tawfekh Production ngeen mën a jot mboolem vidéo boo xam ne nañ ko ngir mën a xam li nga xam ne mooy xew si réew ñu ah, lépp tawfeex sëriñ bi mën a may. gën bi. dafa xaw sori quoi dafa sori. ko bu la gaa yi gisee. mexe ngay jooyi doomam ci wàllu mbëkk mi ñaar ñu fa fekk baax ca génn àddina ci euh, dem googe ñaar ñeneen ñu ci rëccee njaboot yi ndax ñu ko waxee jamono yi tiis ak naqar fa ñoom Cheikh Anta Diop. ay ndaw yu doon dem ci mbëkk mi ñu ci bëri jóge ci dëkk bi di ngaay mexe nee nañ sax toll woon nañ ci fanweer ak juróom-ñett ak lu teg waaye nag bi ñu duggee ci gaal gi doon daxante ak mari national si lañ defee accident ba gaal gi xar am ñu ci suux Xaadim Fall ñaar fukki at ak juróom la am dëkk ci quartier bi ci ñi suuxoon ci géej gi. avant mu ñuy mbëgg daf ñu traversé devant gaal gi dugg génnaat sol ndox mu ni taxaw leen ñu lànk mu defaat même chose jaaraan ñu droit traversé ñu la ma leen fi fekkee daal di nga baal ma ci parole bi daal saaga quoi capitaine bi fayu bi mu ñëwee nag la mbëkk gaal gi bi mu ko mbëkkee mu dëpp def ñu def comme genre bâche euh, marine euh, espagnol bi ñoom doon na sànni ay gilet ñi mu a jege gars di ko sol mu leen di sànni ay corde aussi pour sauver mais ñeneen ñi en tout leen comme Alioune Badara ba ñu gën koo xam ci àll dëkk moom dafa suux ci géej gi ñàkk bakkanam magam di Abdou Karim Ba di ko dëggal njaboot gi sax ñu ngi waajal dëj bi asalaamaaleykum waaw ah, man maay frère àll ba bi décédé ci ndox mi dimanche à trois heures du matin fii quartier Ndiob la. yéen allah dimanche lañ jàpp bu fekkente ne fii dimanche gis nañ koor bi ñu xam ne loolu moo neex suñu borom. buñ ko gisul ñu ñaanal ko nga xam ne loolu moo neex yàlla suñu borom. biñ commencé jot nouvelle am écho yi. Hmm. la nit ñi commencé ñëw ak yuux loolu moom kajoor lu fekk baax. bu fi naqar amee dañ koy bokk ñun ñëpp bu fi bànneex il a daanaka nee nañ ñi fas yéene woon dem fu la ci Espagne matoon nañ ñeent fukk ñoom ñëpp ci ngay mexe lañu jóge woon ak ci dëkk dëkkaan yi ko wër fu mel ni Koura Gàttañ Koura Joor jàpp Pëleen RFM Thiès Cheikh Anta Diop. jërëjëf sëñ Cheikh tukki mi ci anam yu dëppoowul ak yoon marine nationale bu Sénégal xam le ni ñetti téeméer ak juróom ñett fukk ak juróom-ñett ci ñu namoon tukki bu dimel mel euh, daal dinañ leen dogale kar leen ngir sawee ci jéey yu mel ni yowoon euh, ci géej yooyu euh, ñu yàbbi nag ñoo marine bi ci mbëkkante tege woon biir géej Pape Balla Gueye àndoon ak ñoom ci mission d'opération de surveillance ñu teewlu ko fukk ak juróom-ñetti génn yoo xamante ne ñoom la ñu amal ak patrouilleurs yi ayu bés gu nekk ci base navale bu Dakar Saint-Louis ak Ziguinchor lu tolloog juróomi gaal yoo xamante ne dafa feesoon dell ak ay ñoo xam ne dañu bëggoon mbëkki moom la marine nationale daal di teg loxo ci waaxu géeju Sénégal yi lay donte nag am na ñaari njombe yoo xam ne bokk na ci bilangu opération yi ñuy faral di amal mari national nag teg na loxo lu tolloog ñetti téeméer ak juróom-ñett fukk ak juróom-ñett ci ay candidat yoo xamante ne bëggoon nañoo mbëkki ci diirug weeru octobre gile ci mbir mi nga xamante ne moo lëmbe jamono muy suuxuk benn gaal goo xamante ne dafa feesoon dell ak ñoo xam ne dañoo bëggoon a mbëkki ci waaxu ndakaaru yi le ci fan yi ñu génn marine nationale nag ba tey ji nanguwul a wax ci lu ni mel waaye nag mu ngi jëm di setal deram li nga xam ne moom mooy liggéeyam surtout ci wàllum karange lieutenant de vaisseau Pape Iba Ndiaye moo nekk ci seen centre des opérations Guilé. li ñuy def c'est vraiment de la coordination pour liggéey boobu gën a yomb liggéeyu marine yemul kese ci xeex immigration clandestine comme ni ñu koy tuddee suñu liggéey dafa yaatu boobu benn pàcc la si suñu liggéey waaye tamit néewaluñ ko doolee parce que situation bu munti am koo munti woo géej mu nekk ci côté bi ci. zone bi situation bi am dafa am obligation mu dem porter assistance. ci liggéey yi nga xamante ne moom la ñu amal bokk na daal di saytu gaal yi nga xam ne ñoom la ñuy dajal ci ndox yi waaye tamit lépp li nga xamante ne moom la ñu yeb naa de vaisseau Bakar njaay moom moo nekk commandant di bateau bi ñu duppee PHM Kédougou. waaw gaal bi euh, gaalu napp la mm, da doon napp depuis euh, depuis tey si suba. bi ñu xoolee xool bon gisum fa dara loo xam ne jaarul yoon. waaw lenn daal lan fa gis loo xam ne euh, jaarul yoon mooy euh, nappkat yi amul woon ay gile de sauvetage si biir gaal gi te xam ngeen ne euh, gilet de sauvetage lu am solo la maanaam mu looloo tax suñu équipe de visite bi conseillé leen que voilà gilet su beneen su suñuy dem géej même bu dee napp benn fan la sax ñu yóbbaale ay gilet. ci seen liggéey gi nga xam ne moom mooy daal di saytu lépp loo xam ne moom mooy dox ci ndox yi Sénégal yi la toll ci 212 000 kilomètres carrés marine nationale ba tey nag mu ngi dogu ngir fexe xeex lépp lu jëm ci wàllu mbëkk meeg yu ni mel ànd ceeg ñii di waa Guardia Civil espagnol yi.